asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki internet yi rawatina yéen waa Médina ak yéen ñi safa seetaan MTV maa ngi leen di dalal ci la nouvelle chaîne MTV tey dañoo ñëw seet si doomu Médina ci émission doomu Médina ba tax na maa ngi nii du 13 angle boo xoolee fii ma toog buri di nga xam ni damaa ñëw kër géwél yi seng sengi biram géey kéw yaay Awa mais fii ci rue 13 bokkul ak ba tey rue 22 kon damay ànd ak yéen ñu dugg xuusanoo xool doomu Médina bii may mooy kan ak ay jaar-jaaram ak kër gi tamit kon topp leen ma. nee naa leen macha allah di dem kenn du leen tee ngeen nee naa leen macha allah MTV Médina moo xew si jamono MTV Médina sunu chaîne waa Médina. nee naa leen macha allah mbokk ba tey yéen a ngi seen émission doomu Medina te dañoo seet si doomu Medina fas yéene waxtaan ak moom Medina wu démb ak Medina wu tey Youssou noo def. Sofia ñu ngi lay nuyu di kontaan ci seen teewaay vraiment di nuyu mbokki internet yi ci seen bi nga xamante ni suñu chaîne bopp la. la mhm. chaîne médinoise. Mhm. vraiment di ndokkeel ñëpp di ziar ñëpp di euh, baal ñëpp ax di baalu ñëpp ax ci korité gii ñu jóge di xamal ni daal euh, kontaan nañu lool ci dalal la fii ci ci Médina waaye fii ci Ngéwal. waa Youssou tey waa fi ñoo la seet si woon comme ni nga ko waxee ñu bëggoon xam kan mooy Youssou Dieng ay waay waajuram fan la juddoo ak jaar-jaar. waaw Sofia loolu day euh, lu ñuy rafetlu la waaye Youssou Dieng benn benn doomu Médina la ah natif de la Médina juddoo fii yaroo fi màggee fi. Euh, Papa Dieng moo ko jur Alaaji Papa Dieng comme niñ ko Sénégalais yi gën a xamee ak jigéen ju ñuy wax euh, Oumy Diabaye juddoo fi ah yaroo fi màggee fi comme je di doomu Médina di lépp Médina lu ma am lu ne Médina ma ko gënal ah ndax euh, Médina moom ku ne xam ne ne pénc la boo xamante ni euh, université la université la boo xam ne am nañu lépp. ba tax na juddoo Medina la doy na sëkk ci njàng ak lu munti doon nag lu waay bëgg rek booy xëyee Medina environnement bi doy na sëkk ci nga jàng ko waaw foofu mooy Medina kooku mooy Youssou Dieng. waaw Youssou bu ñu jógee ci loolu bëgg nañ xam sa enfance sa jaar-jaar ndax euh, Youssou Dieng moom euh, présenté di ko présenté sax loolu waxaat la. ndax macha allah ñëpp xam nañ la mais ñu bëggoon xam sa jaar-jaar ba nga nekkee xale ak ba fi nga toll nii lan moo la dugal ci aar. waaw man sama enfance nag euh, euh, enfance bu xawoon terrible la parce que dama nekkoon benn booy bu xaw a booy Médina rek <laughs> comme comme tous les xawoon euh, të ah vraiment mais enfance bu neex parce que defuñu ci dara loo xamante ni tey ñu ngi koy regretter ah on a été. wala ma ne j'ai été bien encadré ah, am ay waajur yu baax yu yiw ñu ñu jël ma vraiment euh, dalal ma école hmm, dalal ma alxuraan dalal ma arab ah ba amoon jot trop ci man ah, j'ai l'habitude de dire que sama papa dafa amoon sama jot trop <laughs> parce que comme boobu c'était pas c'était pas facile d'éduquer ah, benn xale Médina mais ma amoon sama jot vraiment maa ngi ko ci njukkal di ko sant di ko gërëm ah juddoo ci kërub ngéwél nag je suis né ndax fii nga ma fekk këru ngéwél la te mooy sama këri maam waaye ma amoon yaay boo xam ne tamit dafa njaboote góor waaye doon jàmbaar boo xamante ni euh, pour mu yar ñu yamalewu ko woon ci boppam ba tax na ñi ci mbedd mi sax di sama ay nijaay di ay Ah, samay dëkkandoo di samay xaritu nijaay ak samay xaritu tànt ak samay xaritu yaay dañu amoon ci man sañ-sañ parce que moom moo demoon won leen ni yar bii may yar sama ay doom ah, bëgg naa ngeen jàpp ci ba tax na sama indépendance ci mbedd mi bëriwul woon ah. léeg ma doon def yëfi xale di di di fàq di di di daw jàng di dem géej ñu ma koy tere tu vois mais yëfu xale la woon ah mais sant naa yàlla bu baax ba ma amee waajur yoo xamante ni ak mbokk yoo xamante ni euh, taxawu nañ ma encadré ma ba nga xamante ni lépp loo xam ne ñu ngi ko doon ragal yàlla dogal na ma mucc ci ah maa ngi sant yàlla bu baax di ñaanal yàlla mucc ci képp kuy ndaw ak képp kuy doomu Médina ko loolu loolu am na solo na xale yi Médina yi ndax lu waay di def rek danga naan waa Médina yi comme mbékki de mooy Njaay ci ci couvre-feu bi ba fi waa Médina génne dafa metti ñëpp. kon yow li nga wax li léegi wane na ko Youssou ñu bëggoon xam kër gi këru cosaan la certes comme ni nga ko waxee sànq say maam ñoo fi juddoo bàyyee leen ko wala. waaw su fi yaa kër gi nga ma fekk nag këru ndono la yaakaar naa ne dinaa këru ndono yi ba bëri fi waaye bii ci la bokk di kër goo xam ne kërub ngéwal la. kan euh, di kër goo xamante ni euh, ngéwal yi bëri na Médina waaye bii bokk na. ci ngéwél yi ci gën a mag ndax euh, góor gi ñuy wax alaaji bay Mboor Fay moo ko sanc bay Mboor seng-seng ko jur Baye Mboor mooy taaw seng-seng seng-seng euh, moo taawloo Baye Mboor moo jur Daawda Daawda jur wuyee seng fay mu jur Mbay Jéey moo jur Ibrahima moo jur Calando moom seng-seng waaye Baye Mboor moomu mu taawloo moo sañ ci kër gii nag moo jur Aram Fay moo jur Siga moo jur Faatu waaye moo jur Assu Fay moo jur Mamadou Fay di maam Fofana di suñu ay maam yoo xamante ni ñoo sañ ci kër gi la ndax sa maam Baye Mboor dafa jër jigéen ju baax ji ñuy wax Maysa Caam am ca Mamadou Fay ak Assu Fay Mamadou Fay moo jur Aram Fay kooñ ak euh, faat Fay di ay samay tànt waaye moo jur Assu Fay Mboor Assu Fay Mboor moomu moo jur jigéen ju ñuy wax Siga Seen moo jur Ummi Seen moo jur Calan di artiste bu mag boo xam ne waa Medina xam nañ ko bu baax a baax waaye moo jur tamit Ibou Seen di artiste tamit bu mag euh, sa maam Baye Mboor toog ba yàgg na doyalu ay soxna daal di jël jigéen ju baax ju ñuy wax xarjata nayal xarjata nayal moomu nag moo jur aram fay ak siga ak faatu arama jur umi jabaay mu jur ma siga moo jur samsu mbay ah, mu jur euh, mama siga <laughs> ak euh, sukay bébé sukay ndeysaan maa ngi koy nuyu de passage waaye mu jur aram mu jur faatu pardon faatu moo jur jara njaay jur aminta jeng sama yaay ji nga fekk fii ci biir kër gi donc euh, këru cosaan di këru ndaanaan ndax ay ndaanaan rek ko dëkkee woon di suñu ay yaay di suñu ay mag ummi seen bi ma lay wax moo jur Mori Cuun ah waaw kër gi moo doon dalal àll sec àll ah, sec moo doon feccal Youssou fii la doon ànd ak Mori ba am fi soxna fii la doomam dëkk muy Mourtala waaye Maguette Saw di ndaanaan bu mag boobu dëkk Louga di suñu papa kër gi moo ko doon dalal kër gi moo doon dalal euh, Ndey Xadi Ñang kër gii moo doon dalal Dunjaay Roos ndax amoon na fi soxna ba dëkk fi sax Ah, ñu koy wax euh, Ndey Binta Fall di suñu di sama maam di suñu di suñu ndeysaan ñu koy ñaanal moo ñu jox euh, Doudou Gueye ah, Blin Ndiaye donc kër gi daal ci gàttal Sofia euh, ay ndaanaan rek ko dëkkee woon faatu Guewel Diouf fii la dëkkoon ndax fii la doon sëy sëyam bu njëkk fii la ko doon sëy ndax sama mag la doon sëyal maam Khoudia fii la juddoo Ablaye Ndiaye fii la juddoo yàlla na ko yàlla yërëm donc ngéwél a ngi ah, bu waaye ngéwél bu Baye Mbor hmm, ngéwél bu seng seng waaye ngéwél bu Baye Mbor vraiment euh, boo demee ci ginnaaw da nga fay gis kër Ablaye Samb nga xam ne moom jarbaat la ci Baye mboor moom it ndax jéey mi ko jur ak euh, maam Baye mboor ay mbokk lañu moom moo jur Ayda Samb ah jur Fat Samb Ayda Samb mooy yaay Omar Xari Omar <laughs> Xari Prod ah vraiment ngéwal gi kër gu yaatu la boo jàllee ba ca gannaaw yaa ngi fay fekk sama yeneen maam yoo xamante ni ñoom it seng-sengay seen maam ndax calaan doo leen jur Ah, ñu bokk dëkkee euh, monument bi nga xamante ni suñu fierté la quoi. Youssou ni nga waxee euh, ku ko dégg xam ne doomu Medina nga surtout seng-seng nga donc yow boo tëggee war nga tëgg soo tëggul war nga tëgg sa jaar-jaar ak sabar. dañ waaw très bien Sophia lool nag lu ñu ko ñu ko ñu ko xam sax bariwul xam nga euh, tey ñu bari dañ may gis suis dans la musique suis dans la communication ah ah dañuy wax ne bon xam nga Sénégal moom bu ñu la gisee nga wax wax ji jaar yoon rek dañuy defe ne. waaw dañuy defe ne waaw pas communicateur sax mais dañuy defe ne euh, doo artiste ah dañuy defane ne ci leneen nga ne alors que euh, comme je viens de dire fii ma juddoo. këru ngéwël la boo xamante ni école la ci lépp luy aar Oumy Sène bi ma la wax di sama tante bokk na ci les membres fondatrice bu bu nga xamante ni inauguration sola sax ñoom ñoo ko ñoo ko def ma ne la euh, Doudou Ndiaye Rose dëkkoon na ci kër gi Mame Less dëkkoon na ci kër gi Oumy Sène bokk na ci les premier artiste dramatique da doon def théâtre ci daaray Kocc ah euh, Calan di artiste boo xamante ni képp ku dëkk Médina bokk ci les années balaa indépend indépendance ba indépendance ba ba les années quatre sax xam nga Moustapha seen Calan ah Mouri Thioune ku ne xam na ko ah euh, ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni ci kër gi la ñu la ñu la ñu la ñu juddoo yaroo fi màggee fi ku ci mel ni Aram Fay yàlla na ko yàlla yërëm ñu gën koo xam ci kooñ moom it nekkoon ci ci ci ci bale ci ci ci ci lépp nekkoon Sorano nekkoon euh, euh, euh, artiste boo xamante ni kenn du ko lamlaane Blin Ndiaye Doudou Ndiaye Rose Junior kër gii la la la juddoo fii la yaroo fii la màggee donc man ci kër googu la yàlla dogal ma juddoo fi ba ma juddoo ci kër googu nag fekk sama ay mag ak sama ay nijaay ak sama ay maam di tëgg sabar mm-hmm. ma nekk xale di ànd ak sama maam Fofana j'avais cinq six ans waaw buy dem làmba ja daja yóbbu ñu ñun ñëpp ñu demee làmba ja fa la ñu nekk di sàjji di jàng tëgg waaye ba un moment ma ma ma jóge fii j'ai la chance de côtoyer El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose Ndiaye Talla Bakar Kodo yàlla na ko yàlla yërëm euh, bu ma demee ci këram fa laa mujjee ne moom waaw fa laa mujjee dëkk mu yar ma moom tamit ah, yokk ci ci ci man fala sama aar bënnee mun naa ne ah parce que moom laa àndal wër àdduna ah, moom laa àndal ñu ñu dem fu ne yóbbu na ma fu ne lépp nag ci aar ci biir loolu j'ai fait des dem jàng bale ah, dem jàng euh, musique lépp loo xam ne daal nit da koy def ci aar jàng naa ko ba mokkal ko euh, yàlla dogal ma voyagé nag dem à l'étranger ah 92 laa commencé daan du njaaros xale laa woon hmm, di def ay tournée di dem di ñëw di def ay tourne ba 97 ma am chance dem États-Unis koroog ba may dem États-Unis moo ma yóbbu aéroport ndeysaan moo euh, soxnaam Adja Sofi Mbuub ma ànd ak benn doomam bu ñuy wax waagaan euh, après un an ma jógee États-Unis dem Japon fa def aar. waaw loolu affaire bu bu bu bu sax ah, muy chance boo xamante ni tamit yàlla dogal na ma ma ma fekkee vraiment di. Euh, moment boo xamante ni euh, sénégalais yëpp nostalgique nañ ko. Mhm. ndax euh, bokk ci jongante bu toll noonu ba pare di ci ami ndam yombul. Mhm. mais yàlla dogal ñu amoon ci ay ndam yoo xamante ni ba tey kenn du ko fàtte. 2002 euh, dafa fekk ma nekk Japon parce que 98 mhm. laa dem Japon. en tant que en tant que artiste. waaw en tant que artiste jàngale tout ce qui est percussion ah di di di di def sama art quoi ah nekk un professeur de dance et de percussion euh, mais mu tombeek 2002 Corée ak Japon organiser coupe du monde mhm. euh, te ñun en tant que doomuy Médina ñu doon ay passionné ah di foot dañu bëgg football parce que ñun ñëpp ASJAC moo ñu yar fii ci euh, école Médine mhm. fa lañ doon dem di jàng football Euh, di doomi Dames di doomi Ngaraaf di doomi Kusum ndax man dama métti sa ah. euh, coupe du monde je me rappelle 82 ndeysaan dañ doon dem ci ay kër di ko seetaan ah 86 la commencé di ko suivre di ci am fàttaliku ah 90 noonu 94 noonu 98. Japon la ma fekk mais dama doon dama doon dama doon ah, daj coono pour seetaani match parce que j'ai toujours été un fan ah du du mondial. 2002 nag dogal mu demee noonu mu fekk ma Japon et je me suis engagé ah. engagé wu man ak sama ay xarit ya fa nekkoon Assane Diabaye maa ngi koy nuyu de passage Latir Si ah Ali xarit boo xam ne ñoo àndoon dem Corée yal na ko yàlla yërëm vraiment Samba Diabaye ah ah Abdou Silla ndeysaan samay xarit yu baax maa ngi ci jaale waa Grand Dakar ndax euh, ndeysaan musa an moom it ndeysaan ñoo ci àndoon doon dem Corée ba Tokyo ah ba Osaka di seetaan doon match yi ensemble groupe boobu lañu ñu ñu dem Corée ah teeru Sénégalais yi d'abord teeru équipe bi euh, waaw dañ leen teeru parce que ñoom Japon lañ doon préparé ci dëkk bu ndaw bu ñuy wax Fujieda fa lañ doon préparé ba ñëwee ñu teeru leen vraiment nekk ñoom nekk bu am maanaa ah di équipe bu am maanaa ndeysaan El Hadj Diouf Fadiga mhm. ah Salif vraiment ah Omar Daaf di doomi Rëbës Pape Malick Diop sama sama sama nijaay sama xarit mhm. ah ñooñu ñëpp ñu nekk waaw Pape Malick euh, noonu seng sengay maamam mhm. ah ñu ñu ñu jóge fa nag Masata Diak mu baax mi def def def def def ñëw ñëw ànd ak ñun moom it supporter ñu fekk nañu engagé wu sax mais dafa ñëw fekk ñu ci parce que boobu metti na parce que ay doomi sénégalais yu nekk étranger di liggéey c'était pas évident ñu mën a am Euh, euh, euh, moyens yu leen déplacé ah mais mu gis engagement bi ñu am mi ne vraiment yéen daal dinaa leen jàppale a ñëw soutenir ñu defal ñu ay billet avion vraiment yóbbu ñu jël ñu en charge ba ba ba ba tax coono biñ ci daj ak lépp loo xam ne defoon nañ ko ci Sénégal moo taxoon vraiment vraiment di ñaan yàlla <laughs> ñu amaat beneen mondial bu mel noonu parce que mérité nañ ko te Sénégal jot na mu am ay raaya nag ndax yàgg koo wut. Hmm. waaye bu ñu xàddi incha allah yàlla dina dogal mu mu mu mu ñëw dina ñëw léegi sax. incha allah Youssou déglu sa waxtaan ak ñun wax nga ñu sa jaar wax ñu fi nga aw wax ñu say maam Youssou ñu bëggoon waxtaan ak yow ci Médina comme ni ko comme émission bi ni mu tudd doomu Médina lan nga am looy wax ci Médina wu démb ak Médina wu tey xale yi Médina démb ak xale yi Médina tey lan nga am looy lancer jeunes yi. waaw Médina nag euh, dafa doon dëkkuwaay boo xamante ni ku fi dëkk ku ne. Euh, waroo ko fàtte. mooy xam sa bopp. waaw réew mi dafa am wax bu ñuy wax boo xam ne man du wax juma juma gëm. wax dama man dama gëm sama bopp noonu nit day xam boppam. gëm sa bopp mën na la dugal ci ci ci ci looy rëccu. waaye nit day xam boppam xam mooy kan xam sa bopp mooy xam li la war. xam sa bopp mooy xam li nga war a def. xam sa bopp mooy xam yaay kan ana. ana naka nga war a def ba bokk ci euh, ñi nga xamante ni dañuy jëriñ seen réew. Mm-hmm. doomu Medina Sofia euh, pour ma fàttali la rek mm-hmm. fan mooy Medina. Mm-hmm. am na solo Medina boo xamante ni Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu moo ko ci 1914. Medina gii El Hadj Malick dëkkee na ko. sëriñ Touba dëkke na ko ndax dalal nañ ko fii ci sanc ba sëriñ Fàddilu Mbàkke dëkkee na ko këram a ngi nii ci rue 10 Seydou Nourou Tall këram a ngi nii ci rue 19 Mouhamadou Mansour këram a ngi nii ci rue 11 këram a nga ne ca boulevard euh, bu Gueule Tapée euh, sëriñ Saliou Mbàkke mu baax mi këram a ngi fii ci rue 1 ah euh, ak ak yi nga xamante ni rasulullah seen maam mënuma lim ñooñu ñoo dëkki woon Medina Alaaji Abdou fii ci pom ah. bu ñu waxee Medina Alaaji bu saaxu dëkk na fi bu ñu waxee Medina Alaaji Maodo Silla fii la dëkkoon rue 17 ah Alioune Diagne Mbor di dëkk boo xamante ni ay ndaanaan ci ci ci wàll wu ne ay wàlliwu ñoo ko dëkkee donc Medina bokk fi rek chance la Medina laa dëkk chance la donc ku yàlla baaxee nga bokk ci dëkk boobu dëkk ci dëkk boobu dara war la lu dul baax dëkk bi ku ne dëkk Medina am na lu ne am na ministre am na euh, lu ne Alassane Ndiaye alo fii la dëkk ñun nga xamante ni suñu ay maam fii la ñu juddoo ci Medina euh, dañoo saf sàpp Medina donc boo xoolee nit yu baax yi dëkk Medina rek doy na sëkk ci nga xam doomu Medina naka la war a mel. naka la war a comporté woo Bamba di suñu maire mi ci def liggéey bu am maanaa euh, Cheikh Tidiane Ba ku ko xam xam ko ci yiw xam ko ci personnalité xam ko ci fulla ak fayda doomu Medina la waaye bu ñu demee ca gannaaw alaaji Mamadou Issa Samb doomu Medina la Adja Aram Diène doomu Medina la euh, euh, Souley Sène bi ah, jur Euh, Omar Gueye Sène mais doomu Médina la ah euh, ak ñoo xamante ni Sofia euh, di lim sax. Balla Dogo ah ay kilifa yoo xamante ni fii juddoo Médina donc ndaanaan yooyu nga xamante ñoo dëkkee Médina te fexe ba ñu xàmmee leen Youssou Ndour mhm. ah jàmbaar jooju nga xam ne tubaarkàlla tey foo dem ci àdduna boo tuddee turam ñu xam ko Médina gi la juddoo yaroo fi màggee fi fii la ay maamam dëkk. mu juddoo fi yaroo fi màggee bi fexe fexe ba tekki ci réew mi kon doomu Medina lu waay di am ci réew mi rek war na ca bokk wala mu jiitu ca waaw doomu Medina noonu la war a mel. Medina bu démb ak Medina bu tey métissage bi euh, mag yee ko ñaan barke bi mag yee ko ñaan euh, donc mag yooyu ko dëkkee woon seen barke ngi fi ba tey nit nag bu fi juddoo yore fi màggee fi nu mu bëgg a mel rek mel ko. bu bëggee baax dina baax ba ñëpp xam ne baax na waaye bu bëggee safaanu nag kenn mënu ci dara te euh, ñii ñu xàmmee te yàlla dogal ah, ñu bokk ci réew mi ak ni muy doxee ñu ngi def lu ñu mën pour doomu Médina fexe ba ku ko gis naw ko ku ko gis respecté ko ku ko gis xam ne vraiment nitu référence la man da ci ci ci yoon woowu laa ne ah ñu ngi ciy ndokkeel xale yi nga xamante ni ñu ngi fii ne ci aar ne ci ci ci ci ci domaine bu ñu mënti ne di góor góorlu fexe ba bokk ci ñu ñuy ràññee ci réew mi Youssou Ndour doon na wax séddale ci kudd yu njëkk ya donc euh, nañu fexe bokk ci kudd yu njëkk ya fexe bokk ci kudd yu njëkk loolu la Youssou Dieng wax Youssou bu ñu weesoo loolu dañuy waxtaan ak yow sa diggante ak artistes yi waaye nag lu artistes yi bari bari bari dañ lay gis ak xale boo xamante ne dafa nekk xale bu xew si jamono nit ñi naan xaritam la muy ànd ak moom nit ñi naan waale da koo xëcc ci moom pour xool avancement am ñu bëggoon xam sa diggante ak Wally mais balaa loolu sa diggante ak artistes yi. waaw Sophia man je suy artiste comme tout tout tous les artistes artistes yi suñu suñu relation du dara lu dul frère ñi ciy góor sama ay frère lañu ñi ciy jigéen sama ay sœur lañu ñii ñoo jàngandoo aar ñii fekk nañ ma ci aar ñii ma fekk leen ci ah ñoo ànd ànd bu rafet artistes yëpp samay xarit waaw artistes yëpp samay xarit lañu ndax man. suis un acteur culturel ma bi sa bi bi sama euh, aar weesoo mhm. yamuma ci di di ko di ko def rek mhm. dama bokk ci ñi ma dama gëm ni bokk naa ci ñu war a taxawal drapeau aar ba mu ba ba mu ba mu siggi ba kuy artiste ñu naw la kuy artiste ñu respecté la kuy artiste ñu jox la sa cër parce que man lu ma am aar ma ko jox aar ma teral aar moo ma yóbbu fu ne ci àdduna donc lu ma am ci aar laa koy delloo euh, sama bëgg aar yëpp nag ak sama bëgg mu baax yépp àggul ci euh, séq ak ku ma ku ma bëggul ma séq ak yow liggéey lu ma la bëgg-bëgg ak loo ma bëgg-bëgg-bëgg boo sàkkwul ci man ñu liggéey <laughs> non du ma liggéey ak yow mhm. ndax bëgg liggéey agul nag ci dem fuñ la wooyewul déedéet mhm. waali sama sama rakk la sama mbokk la balaa dara sama jarbaat la mhm. ah, sama xarit la mais bu ma woowul woon ci ñu liggéey du ñu liggéey benn yoon comme ñëpp lay def di apprécier lu muy def ah euh, mais euh, nit la koo xamante ni dafa sàkku ci man ñu liggéey et may liggéey ak moom sa ak ak ak ak xol bu yaatu ak xol bu bu bu bu bu laabiir ndax man euh, li may defal Wally pour man defaluma ko Wally aar laa koy defal musique laa koy defal Sénégal laa koy defal parce que Wally xale la bu Sénégal am ci moom yaakaar xale bu am jom. di xale boo xamante ni wax fa dëgg yàlla jàppale ko mooy jàppale Sénégal jàppale ko mooy jàppale la musique sénégalaise jàppale ko mooy jàppale sa bopp parce que lu mu am ci musique mais Sénégal moo koy tiitaroo lu mu am ci musique euh, musique moo koy tiitaroo lu mu am ci musique art moo koy tiitaroo bu yàlla dogalee mu mu bu ñu yàlla boolee pour ñu liggéey et ñu ngi liggéey comme nit ku séq ak liggéey ak ku mënti doona ah. fii ku xëy rek da ngay am ànd ak nit ku xëy rek ci ci bërëb nga dem pour liggéey waaw mais loo ku yokkul da nga wàññi euh, loolu lañ doon ñaan yàlla xam nañ doon ñaan yàlla euh, bu ñu ci lu ñu ne rek mu mu mu mu dox ba nit ñi xam ne mi ngi dox. mais ci la bokk ak mu lay déglu. waaw waaw confiance bi xam nga confiance bi euh, résultat moo koy waral xam nga nit boo amee ci moom confiance te indiwul benn résultat amul njëriñ donc yi dafa yaatal liggéeyam vraiment dafa doon dafa doon groupe boo xamante vraiment lu ñuy def yëpp dañ koy def en équipe man ci wàll wu ma ne dama ciy def lu ma mën ñeneen ñi ci wàll wa ñu ne ñu def lu ñu mën loolu mooy waral résultat bi di di di di demee ni muy demee tu vois donc euh, lu mu sàkk woon la vraiment ñu amoon yéene def ko yàlla dimbali ñu ba ñu ngi ci am résultat yoo xamante ni yaakaar naa ne neex na sénégalais yi ah et c'est juste euh, début euh, d'un chemin boo xamante ni fi ñu jëm xam nañ ko la ñu fay yóbbu xam nañ ko nu ñuy def pour àgg fa xam nañ ko te ñu ngi ci yoon wi yàkkamtiwuñu nag ah contrairement ak sénégalais yi dañ yàkkamti gis nga léeg-léeg nga dégg ñu ne waaye dafa war a def euh, way comme xam nga way international way comme nigérien yi way non non non non non non euh, woon na ay wax sax ba def ko mais jëriñu ko dara. <laughs> ndax amu ci benn prix donc c'était pas le moment mm. waaw pour nga dem international il te faut un contrat ah il te faut une maison de disque <laughs> ah il te faut un distributeur donc euh, loolu nag du looy ñëw rek jënd ko loolu du looy ñëw rek na ci sarax comme Sénégal yi fi ni mu désorganisé woo nii fu waay juge génn single fu waay juge woy fu waay juge produire nit tat ñuy def dara baaxu ci dafa jaxasoo dafa compliqué dafa dafa mel ni marché bu tas te warul demee noonu il est temps que ñu organiser musique bi il est temps ñu xam ne lii du foo mais ñun ñoo ko jàppee foo parce que ñooy jóg animateurs yi am nañ ci part de responsabilité bu rëy rëy ku ñu jot invité feesal diw feesal na fii diw ndaanaan la ndaanaan du du baatu caaxaan waruñu ku ñu jug tuddee ko nañu fexe ku ñuy tuddee ndaanaan nga doon ko nañu fexe ba ñu organiser musique bi ba nga xamante ni dinañ ko mën a jële mu nekk yóbbu ko loolu nag pour mu am fi foog mu organiser wu warul doon ku mu jug rek nga nga nga way bañu ñu ko way ñun waye ñu fi ba way rek la ñu bëgg musique rek la ñu bëgg mais na jaar yoon ki war a way na way ki war a tëgg na tëgg ki war a guitare na guitare ki war a batterie na batterie ki ko war a jàngi dem jàngi ko ba bu ko defee ñu xam ne kii lii muy def maîtriser na ko foofu la aar nekkoon dangay dem jàng ko ba mokkal ko mais tey jàng loo bëgg a tari da gàkk rek gàkk gi nag mun nga am ay xarit mun nga am ay mbokk mun nga am ñu lay ñu lay jay waaye bés dina ñëw non loo loo loo loo ci ci yoon wi rek di nga delluwaat ginnaaw dox ko quoi donc loolu mooy sama sama sama sama sama position man ci ci art ci musique et loolu mooy li nga xam ne moom laay liggéey ak Wally Seck te bu soobee yàlla euh, ñaan nañu yàlla yaakaar bi sénégalais am ci ñun mu bañ a tas te bu soobee yàlla euh, am nañ ci yaakaar ah, euh, ci fan yu néew dina dina dina dina dina dina gën a leer bu soobee yàlla nañ ñaan yàlla rek mu dimbali ñu ba pandémie bi xew ah mu mu mu teggi ko ba ñun ñëpp ñu dellu ci ñuy activité bu soobee yàlla mbébét yu ñu am ak yéene yu ñu am mm, bëri na mais ci sénégalais yi jàppale ñu rek la mën a anto ah ci sénégalais yi wóolu ñu rek la mën a anto donc patience boobu mu ngi fi ambition boobu mi ngi fi expérience boobu mi ngi fi te bu soobee yàlla Euh, li ci kanam raw li bët. mbokk yi ba tey yéen ci seen émission doomu Médina di ca ànd ak mt MTV la chaîne médinoise ñun suñu eggali. ayca léegi Youssou euh, bëggoon nañ xam na ngeen dundee Covid 19 bi ñu ngi gis marché yi bekki mooy Ndiaye ñoo ngi gis sa mbokk géwél yi dem def marché ñii naan liggéeyatuñu aj nañ sabar yi bongo yi tëdd na boîte yi ibbeetul te monsieur le président Macky Sall lim na te boolewu ci géwél yi loo gisee loolu. <laughs> waaw mais euh, Sophia merci hein, Covid ba bu mu xeweek léegi ni ñu koy dundee comme tout le monde ni ko ñëpp dundee rek lañ ko dundee ah man nag euh, wàll woowu ànduma ci quoi ànduma ci Macky Sall waxul raas géwal xeet la te yëf yi ba mu tàmbaleek léegi dégguñu Macky Sall tudd benn xeet loolu rek moom ma dérangé ci ci ci marché bi quoi mm-hmm. parce que dañ ko tàmbalee ci artiste mujjee ko ci ngéwal mm-hmm. non warul demee noonu Euh, réew mi ñoo ko bokk mm-hmm. ndax réew nag ak loo tuuti tuuti tuuti tuuti boo fa juddoo rek am fa cër li xew nag dafa touché ñëpp ni mu touché artiste bi mais noonu la touché tailleur bi ñaw noonu la touché mécanicien bi noonu la touché ouvrier yi nga xamante ni yëpp ñi ngi ñi ngi ngi liggéey ci ci te tey doomi réew mi ok euh, confiné nañ ñu deux mois bay dugg ci troisième mois bi metti na ah xale yi génn nañu gis na metti nañu ñaxtu ko mm-hmm. biñ ko ñaxtoo président yokk heure bi bi yëf yi amee léegi ñu tëj boîte yi tere bépp manifestation ah wala événement c'était par rapport ak feebar bi ah ok bañ demee ba benn moment metti na mais nag gars yi nañ sant yàlla. ndax moo ñu ko <laughs> yàlla moo ñu ko teg. Euh, loolu nag dama ciy profité rek ñu wax politiquement li ma yaakaar ne moo waral gars di ñaxtu. mooy nii président Macky Sall ñu ngi koy nuyu de passage di ko di ko jox wàccuwaayam dafa communiquer tudd xaalis moom président bu mu communiquer tudd xaalis wax ci làmmiñu boppam na dina jàppale sénégalais yi waaye séddale bi jaarul yoon. agsiwul ci géwél yi daal e-, ci kenn du géwél yi rek man bëgguma sax ñuy wax waxi géwél. géwél bu ñu wax géwél nañu wax les artistes parce que artistes yi am na ñoo xam du ñu ay géwél te ay artistes lañu yaa les instrumentistes ñoo xamante ni ñi ngi jouer guitare du ñu ay géwél ñi ngi jouer clavier du ñu ay géwél na ñoo xamante ni ñi ngi liggéey parce que art du musique rek ah et c'est là où les gens se trompent toujours art du musique rek art dafa yaatu ñiy cinéma ay artistes lañu sculpteurs yi ay artistes lañu mais dessinateurs yi ay artistes lañu tu vois donc art du musique rek donc musiciens yi bu ñu jël yëf yi tamit bëgg defe ne importance bi réew mi war a am yëpp ñoom ñoo ko am non non non ñëpp ñoo sonn mais politiquement nu ñu gere seddale bi jaarul yoon du dëgg du yoon nit bu la joxe ngay seddale da ngay fexe ko war a jot cëram jot ko Macky Sall mënul tudd 1000 milliards ñëpp di ko dégg kenn gisul dara mënta ne mënu leen ñu jiite ba pare ñu yaakaar leen. Euh, euh, séddale jot xaalis bi ngeen jël ko di ko pasar pasaree di ko séddale nu mu leen neexee loolu moo tax nit ñi mer loolu moo tax nit ñi wàcc ci bi loolu moo tax nit ñi di ñaxtu man ñaxtuwuma en tant que géwël du ma ñaxtu mais neexuma en tant que être humain en tant que sénégalais neexuma nu gouverner ne veut pas dire ngeen moom ñu moomu leen ñu vous pouvez nous aider ba pare euh, déconfiner ñu parce que ku juddu ba yàlla dimbali la nga am ñeen fukki at état yoru la donc nu gouverner ne veut pas dire moom ñu encore une fois jëfi na jaar yoon ñëpp yam ci bu ngeen diglee na ngeen ci jiitu autorisation yi dem na ba àgg 4000 dem na ba àgg 5000 autorisation ay laissez-passer yoo xamante ne ay autorisation de circuler la ñi ko yor lan la ñuy lan la ñu koy doyee guddi doyewuñ ko dara ñi toog seen kër amuñu pexe amuñu les moyen pour am autorisation <laughs> mais dañuy mer ñu ñooy sànni xeer ñooy taal donc pensez au plus bas xalaat leen ñu ba xalaat leen baadoole yi fexe leen seen système yi baadoole bokk ci fexe leen seen système yi ñu néew doole bokk ci loolu mooy gouverne booy gouverner da am yërmande artiste ak plasticien wak euh, marchand ambulant ñëpp ci yam réew mi ñëpp ko bokk kon ñëpp war a yëg ni ñoo bokk réew mi séddale bi jaar yoon ceeb yi ñu jël di ko ceeb yi dañ lay romb ba nga yaakaar ne sa kër lay dugg dootoo ko gis lii rafetul yéen ñi Macky Sall la jox xaalis bi ngeen war ko séddale bu dee xaalis bi egsi ci yéen xool leen lu ci jaar yoon ngeen def ko xa milliards yi lu mu bëri bëri bëri Sofia fajarul kenn soxla milliards yi lu mu bëri bëri bëri mënuñu ci jox nit lu ko dundal ren ba déwén donc waaye comme tudd nañ ko nañu fexe ba ku ci ne gis ci boppam muy artiste bi muy ku mënti doona ah. man ci domaine boobu laa nekk mais pas ay géwél ki géer ki bee ki ngeeñoo non nekkuma foofu quoi donc Euh, Covid bi ñëpp ko gisandoo ñëpp ko yëgandoo nañ ñaan yàlla mu jóge fi bu fi jógee dañu dellu suñuy activité bu soobee yàlla mais il est temps qu'on nous déconfine il est temps qu'on nous déconfine quoi. mbokk yi comme ni ngeen ko déggee seesi nañ Youssou Dieng mu waxtaan ak ñun ñun si jaar-jaaram fi mu juddoo fi mu màggee waxtaan ak ñun si artistes yi waxtaan ak ñun ci Covid 19 bi ba tax na dañuy tàggatoo ak moom Youssou nga wax lan ngay euh, ban appel ngay lancé jeune Médinois yi waaw Sophia merci vraiment euh, balaa loolu kontaan rek kontaan ci seen jaar. Hmm, le fait que ngeen xalaat ma man mi nga xam ne ah euh, benn kenn ku tekkul dara la ah <laughs> vraiment ngeen boole ci ñi ngeen yaakaar ne war ngeen a moom ba tax ngeen déplacer wu ñëw di wax ak man vraiment maa ngi koy maa ngi di leen ci remercier mais di kontaan ci ci ci ci ci initiative bi nga xamante ni doomu Médina moo koy initié. MTV ah, MTV. Mhm. vraiment ñuy ñaan yàlla mu doon ah lu lu télé yi gën a mag ci réew mi. Mhm. ndax Medina mérité na ko. Medina mhm. euh, am na gëdd boobu ah te vraiment bëgg nañu doomu Medina yi gis ci seen bopp. ndax bëri na fi yu fi ubbi te doomu Medina yi gisuñu ci seen bopp ah donc bii nga xamante ni doomu Medina moo ko ubbi. yàlla na ci doomu Médina yi gis seen bopp. amiin yéen ñi dëkk Médina aussi di di di di euh, bëgg communication bëgg euh, fësal seen i euh, produit ah projet lu mu mënti doon ñëw leen jàppale. MTV ndax suñu yëf la te bay ci say woyu tànk. Mm-hmm. man dinaa ci jàpp ci nu mu ci mën a jàppee ak nu mu néew néew néew dinaa fexe ba bokk ci ñi cay ñi ciy jàpp bu soobee yàlla ak yonent bi parce que. ah bala nga laax jaay dangay laax lekk donc ñu ngi ñaan yàlla mu màggal MTV ba mu màgg lool euh, mais suffit à vraiment di euh, fàttali rek ne doomu Médina euh, brain la waaw doomu Médina dafa war a muus doomu Médina dafa war a tekki parce que suñu dund neexul lool waaye bu ñu góorgóorloo mu neex fii la Ablaye Mbuub bàyyi ko di ndaan boo xamante ni ah, kenn dootu ko présenté suñu maam Alaaji Badara Mbay Kaba suñu maam ah, maam bu naa mbaas ah, ci ay ndaanaan yoo xamante ni euh, ñu réew mi joxun cër lañu donc ñun doom Medina fu ñu toll dañu war a bokk ci ñi réew mi jox cër ndax nag ah barke bee ngi fi de waaye intelligence bi mi ngi fi ah donc euh, vraiment Sofia du ma def lu dul ñaanal leen sant leen gërëm leen yow tamit Dieng War la ah euh, nga dem ba bokk ci animatrice yi ñuy toog di xaar ak di leen déglu ndax euh, du dara ah, kenn moomu ko ah waaw yëf yi moom necc rek la ak gëm na war naa mën a ne yàlla nekkal ko. ñoo ngi ñaanal ñëpp nag ñu am jàmm Medina kaa yi fi jotoon am yàlla na fi yem yàlla bu fi kaa amati yàlla ñu bokk ci ñu nettali suba yàlla bu kenn feebar yàlla bu kenn wopp yàlla bu kenn tëdd ah suñu waajur yi fi nekk suñu kilifa yéeg ñu ñu jiite yàlla saxal leen fi yàlla may leen gudd fan ak wér vraiment ñoo ngi sant yàlla bu baax a baax a baax ah di di di di di kontaan ci ñëpp daal di kontaan ci ñëpp ah di dolli di waxaat doomu Medina yi non dafa war a nice war a nice comme ni ko Youssou Dieng waxee mbokk yi yéen ñi toog di seetaan MTV rawatina seen émission doomu Medina man si Soufia maa ngi am contentement di leen wax nii ngeen def di ma xaasaasu ne dina may neex kon duma def lu dul dama seet beneen doomu Medina fii ci MTV.